عسير مع الأبرار هنا أسير وزن لداني هناك أسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الهداة الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة ها نحن نصل في حديثنا إلى منة كبرى من الله بها علينا منة باقية في شخص خديم رسوله صلى الله عليه وسلم القطب خادم رسول الله أحمد بامبا حامل لواء هذا الدين في وقت تجمعت فيه ظلمات الكفر وظلمات الجهل إلى منتهاها فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة الباقية ببقاء أوليائه وبوجود رسله فخادم رسول الله أحمد بامبا نعمة كبرى ومحراب في محراب bokk yu tedd yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu niñ leen ko diggee woon baaxoon leen ko wax muy xaadimu rasulillahi ahmadu bamba taxaw ci kanam xaadimu rasulillah mooy taxaw ci kanam xéewal bu mag jant ju fenkal àddina yépp alxuraan joo xam ne nekk na di jëmm ñi gis ca jëmm jooja ca jëfam ca waxam cay santaaneem cay tereem ca yëngatoom ca dalam ci léppam alxuraan juy dox wax jooju sosuma ko jëlewuma ko itam ci samam xel di ko indi dama caa sukkandiku waxu boroom xam-xam yi seen mbind mu fi des ca laa teg sama bët samay gët taxaw di ko nettali gannaaw bu ko sama xol yëgee gannaaw bu ma jàppee ne wax jooju amul benn werante gannaaw bu ma toppee tànk yooya gannaaw bu ma xeeñtoo jëf jooja kon ba ma boolee fa ma sukkandikook la ma yëg ne naa axa kay xaadimu rasuulillaahi ahmadu bamba alxuraan juy dox la waaye lu jiitu muy feeñ ci jamono dafay laaj ñu xool jamono ndax balaa xéewal feeñ dana am màndarga yu koy jiitu lu jiitu muy taw dana xiin lu jiitu muy taw dana tàng lu jiitu muy taw bari na yu jaww di wone ay ngelaw ak melokaan ba ñu xam taw danañu wax ne léegi tey mu taw tepp-tepp sax dana fa feeñ ba ñu bari foog ne mi na kon taw na te fekk tepp-tepp yooyu ñooy juri waame awalul xaysi xatratun summa yanhamir tepp-tepp yi jur waame kon lan moo jiitu woon feeñ ak sëñ bu mag bi ci jamono mooy ay yëg-yëg ñu bari yëg ne réew mi tooñ ak buur yi ñu defoon ëpp na ñépp yëg marag lislaam ne ak dog doxale bànneexu bakkan ku mën sa moroom duma moyaal nangu alali jàmbur yi réew mi ñu dogat ko ay dog ku nekk naan mana mana ku nekk di laaj yëf yi deret yi di tuuru barab yi di xat nit ñi bëggoon nañu génne ci xat-xatu tooñeel yegg ci yaatug lislaam diggante kajoor ak bawal diggante siin ak saalum diggante njàmbur ba ba nga yéggee waalo diggante fuuta ba ba ngay duggee réewam Sénégal oriental te mooy réewu boori Kédougou walla nga ñëw boori bàkkel wala nga dem réewu Casamance walla nga dugg sax ba Mali ak fu ci nekk rekk ay yëg-yëg a nga fa réewum Guinée réewum Mali réew ñi wër yépp ca Guinée jëmm ñëw na indiwaale turwa ñu tuddee ko ko Ahmadou ba mu yëg ba jël dëkkam tuddee ko tuubaa kon kooku yëgoon na ne am na taw buy ñëw te fokk ay tepp-tepp jur ko yooyu yëpp dama bëgg a wax ne irhaas mooy jiitu neema xéewal boo gis yëg-yëg xiif gu ko nit ñi di xiif bugg buñ koy bugg moo koy jiitu kon su Cheikh Ahmadou ba ñëwee gane àddina ci jamono jooja nga xam ne ñu ngi ci maas ak fukk ak ñett kon nga xam ne ñëw na ci jamono joo xam ne yëg-yëg yi soxla nañ ko barab yi soxla nañ ko nit ñi soxla nañ ko loola kaña loola ma nga nekk amu sharaa chin gi di junne raa bi di ñaari téeméer ayn bi di juróom ñaar fukk am na nag ñu ne bi charin dolli ci ak ñaar am na ñu joxe yeneen waaye bii soo demee ci suñu waajur bu baax ba Cheikh Bachir al Mbakiyu soo demee itam ci Mouhamad Lamine Diop Dagana soo demee ci mu yi yépp danga gis ne ñoom dat boobu dañ cay taxaw lu yàgg naka noonu boo demee ci Hamid ibnu usmaan bi Fuutankoobe moom itam sax sadd na ci ay bayt ne qad wuddidal xadiimu man qad sharaa shariatal muxtaari aama sharaa summa madaa li rabbihi aama shumuusin wa amruhu aynun wa daalun ka shumuus wa qiila anna umruhu maali niltal muna wa sirrukal maali kon aamu sharaa di 1270 atam junne ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci la xéewal booba feeñ di cheikh ahmadu bamba cheikh ñépp xam nañu ko al naarun ala alam cheikh ahmadu bamba ñu ngi ko tuddee wàlliyub yàlla bu baax ba nekkoon itam di sëriñu waajuram bu tedd ba nekk ci ñu ëpp luñ ko jàngal mooy sëñ Muhammadu Bamba Sàll bu ba su ko defee foofu tur woowu lañ ko jox sëñ Muhammad Bamba Sàll wàllu la bu ñu xamoon di boroom xam-xam bu yaatu xam-xam bàyyiwul nag ay doom bàyyiwul ak njaboot moo tax ay rakkam ñoo continuer liggéeyam ci moom ci la maam Mor Anta Sali Muhammad ibnu Habibullahi ñu xamee ko ci maam Mor Anta ci moom la jële lu ëpp ci njàngam ànd ak maam Mor Anta nag jàngee na itam ci ay bokkam ca kokki ak yeneeni barab kon Muhammad ibnu Habib moomu di Mamor Anta mooy doomi Muhammadul Kabir may doomi Habib mu mu njëkk ma mañ tuddee Habib mi nga xam ne mooy waajuram muy doomi Muhammadul Xayr may doomi ba tey Muhammadul Kabir ba ñuy tuddee Maaram maam Maaram Mbàkke bi nga xam ne moo taxawal Mbàkke Bawol mammaaram taxawal ko ci aama atam chaq da din siin ba di junne xaaf ba di téeméer dégg nga daat ba di juróom-ñeent fukk daal ba di ñeent atam junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent mammaaram moomu suñuy wax mbàkke dañuy koy yéegalaat ci mbàkke maaram mu bokk ci ay maamam noonu lañ ko mën a yéegee ba ba ñuy yegg ca wàllu fuutankoobe ba nga xam ne ca fuuta lañ jóge noonu lañ ko mën a yéegee ba sëñ bu mag bi delluwaat ca Muritaan ci ay famille shérif yu wér noonu lañ ko yéegee ba mu mën a yegg ci al imaam Xasan mu tase fa ak Seydi Ahmed Tijaani ma nga xam ne mooy doomi Fatima di doomi yonent bi wax ju ni mel ak taarix yu ni mel danga ko fekk ci sang ba di boroom xam-xam ba di Cheikh Muxtaar Binta Lo doomi Ibrahim te ñu xamee ko sëriñ Ñomre sëriñ Ñomre ak sëñ Mouhamad Lamine Dagana bokk na ci ñoo xam ne ñu géeju lañ ci xam-xamu sëriñ bi moo tax soo demee Cheikh al Bachir Mbacke radiallahu anhu ca taalifam ba ca muqaddimaam ba ma ngay wax ne xawaarequ sëriñ bi nag ak kéemaanam yi yooyu bàyyee naa ko Mouhamad Lamine Dagana Mouhamad Lamine Diop Dagana ak sëriñ Ibrahima euh, Bintu Lo muy sëriñ ñomre man dama jël yoon wa ak jaar-jaar ya kon loolu mooy Cheikh Ahmadou Bamba ci ganeem àddina ama charin loolu mooy Cheikh baam Bamba ci nësabam noon nga ko fekkee itam ci wàllu euh, waajuram bu tedd boobu muy maam Mor Anta Sali nga ko war a jaare itam ci wàllu néeg ndey bu sell buy yéeg ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mbosonkoobe boo jëlee wàllu jaaratullahi maryaama buso nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci ibaada aabida saaima boo demee sëñ Basiru radiallahu anhu ci minanul euh, minanul baaqil qadim man ko cay jox julleem wooram taxawam ay guddi yaram gëm doon yar njabootam ci ay xisas nettali yu rafet waaye ma ngi la cay waxitam ni mu yéemoo teel a gis sang bi bam ba ndax gis na ne su ñuy waxtaanee xéewal ak mbaax rek da gis ni sëñ bi ci saa si moom ma ngi koy jëfe bokk na ca sax ne daan na daan nañu waxtaanee taxaw guddi ak ngëneel ya ca nekk rekk ñu gis ne sëñ bi su guddee rekk mu jóg di taxawal guddi ci ay naafilaak ay jaamu yàlla ak jegewaan teeg boromam Cheikh Ahmadou moomu nag soo demee ci minnanul baaqil qadiim daf koo jël defal ko ci fi sirati Cheikhul Xadim daf koo jël defal ko ay bunt wax la nag ne la ca taalifam ba moom sëñ ba Bachiru radiallahu anhu ma ciy teg ay tànkam ci ñu ko jiitu ci liggéey boo xam ne lépp benn bi la dafay mottaliwante lu mel ni liggéeyu Ghazali ak lu mel ni liggéeyi Abul Hasan Ash-Shazili moo tax ma ngay wax moom sëñ Bachiru di fàttali ne xóotul xulóob bi nga xam ne mooy bu abul xasan lii dafay def ci xol ak leer looloo tax leer googu mu gis ne def ca bugg a saf ngir leer googu itam di gën di jolli mu ne ixyaa ulumu diin bu al imaamul dafay joxe xam-xam te gannaaw dafa jóg di liggéey ci xam-xam mu sof xam-xam ci kaw xam-xam ngir xam-xam mun a jolli looloo tax ca téeréem ba minanul euh, minanul baaqil kadim moom Cheikh Bachiru mu defal ko ay bunt bunt bu jëkk ba dellu nag ci sëriñ bi lan la ci yoon wi ñuy wax tëw ba te tëw ba ak ëw ba ñoo ànd dellu ci yàlla dellu ci yàlla dellu goo xam ne dellu leer la ndax yàlla léppam ak leer la mu wone nag foofa bunt boobu sëriñ bi ak bunt boobu ñuy wax ba ñëw ci buntab ñaareel bi ñëw ci sabru ak muñam mu ne lim daan muñ ci ay mettit ak di ko tegale koo ko tegale woon rekk mu onkat waaye sëriñ bi xàmmewutoon ndax lépp dafa am ko mu jaayanteel te mooy yàlla ba tax gisatul leneen lu mooy yàlla yàlla moom nag la daan gis ci lépp li gënal keneen ak li gënalul keneen moom lépp mu gis ko muy ngëneel noonu la ko toppe ci buntu cant a sukkur te muy bunt bu yaatu ndax yàlla léppam daf ko teg ci xéewal ca lay yokkee wilaaya ca lay yokkee xam-xam ca lay yokkee am-am ba tax mu wax ko ñëw ak moom ca ñeenteeli bunt ba ci buntu yaakaar raja yaakaar gooy yaakaar kenn te loolu dañ ko gisi ci kanam ci dundam ci kanam buur yi fi nekkoon ak biñ ko ci bëgg a ommat ak biñ ko ci tegalee ne ko boo demee jëriñu na mi këmaxee loolu danañ ko gis ca buntab juróomeel ba moom Cheikh al Bachir muy wax ci sëriñ bi ci ragal goo xam ne ragal na ko yàlla ba nga xam ne amul leneen lu muy teg di ko xool di ko peese lu mooy ma ngi peese ne lii war naa neex yàlla wala lii na war naa rek yàlla wala lii war naa naqadi yàlla amul na rek lu koy peese moo doo woon peese kaayam mu ñëwal la moom Cheikh al Bachir ci juróom benneeli bunt ba ci zuhdu na mu dëdd woon àddina moom sëriñ bi ba nga xam ne yàlla ommataloon nu ko mbindeef yi sëñ baa ngi koy wax ci biir téere bi ñu koy ñu nangul ko nangu goo xam ne dangay xam ne lii tàmbaliwul tey ca ësal la woon bakkan yi la yàlla ommatoon démb ñu ñëw tey gis lañu xamoon démb lu jiitu seen ñëw fii daw ut si ko waaye nag mu ne loolu yépp ak lañ ko doon liggéey ak lañ ko nangul yépp taxutoon mu teg ko fenn walla mu taf ko fenn daf ko jël rekk delloo ko ca ka joxe loola muy yàlla mu ñëwal la ci buntab juróom ñaareel moom Cheikh al Bachir di la wax fi yi ca na mu wàkkirloo ci yàlla ba nga xam ne lépp rekk gis na ni moom am na fu mu sukkandiku fu mu téyandiku fu dëgër mu ñëwal la ci nangu ak mbuggeel nangu ut ngërmandel yàlla firda ak mbuggeel gu mu am cofeel noonu la la koy toppale mu tënkal la nag moom sëñ Bachir daal dundab sëriñ bi soo ko buggee natt boo ko buggee xam mu ne la ca xéewal bu mag ba ko yàlla jox te mooy xel foofu sëñ baa ngi firi xel nee na xel ñaari xeetu xel la muktasab te mooy bi nga xam ne danga nàmm sa bos ba mu miin ñi ne ah kii de am na xel te fekk nàmm ba mooy li ñuy wax làkki ci philosophie mu indi la nag beneen bi nga xam ne leer la juddoo waale la muy almunawwar mu indil la ko te mooy l'esprit de l'inné danañ koy wax ci philosophie foofu nag Cheikh al Bachir firil la ñaar yooyu ci Abdallahi ibnu Zubayr mu nekk xale Abdullahi ibnu Zubayr ba mu nekkee xale ci la seen Sidina Omar te fekk ñoom ay xale lañ ña ngay fo kenn la ci saxaaba yu mag yi bi mu ko séenee sidinaa Omar ñépp daw xale yépp daw moom dawul Sidina Omar ne ko lu tax dawoo mu ne ko defuma lu war a tax may daw defuma lu bon kon fekkoomal ci lu bon ba tax may tiit di daw te yoon wi itam xatul ba ma war koo yaatal euh, pour nga mun a jàll gannaaw nag yoon wi yaatu na te defuma lu bon lu tax muy daw sëñ Bachir a ngay wax naan xoolal ak xale bu toll ci fo ba pare nag ame xel moo xam ne xelu mag mu mun a tontoo la yooyu yëpp nag pour mu firi ci ba indil na ne Sidina Ali yonent bi sallallahu alayhi nee na ko jaamul yàlla ci sam xel yooyu yëpp nag bi mu ko jëlee tënk ne yàlla dafa may sëriñ bi xel ak leer boo xam ne soo koy tënk mu ne daal ca waxu bu sayru yu bare nga ko mun a tënkee te mooy alifa nuska wal ibaadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaau mu ne loola daal daf ko indiwaale màggaale ko te mooy euh, jaamu yàlla ci ñaari xeet ya ca la ñuy rey ak la ñuy joxe jaamu yàlla ca la ñuy taxawee xalwa wéet te yàlla tax mu ne loolu daf ko indiwaale cag ndaw mu ne nag ñu mag ñi ñëpp noonu lañ was di jaar sukoori bi aqlaani wa qalbi wa jusadi liman kaana li bil joodi wa wa sakuru bokk yi gannaaw bu ñu santee yàlla ci xéewal yu mag yi ñu jox ñuy baawaan ci réew mi sant ko taxaw taxawaay ak xutbu boobu di xéewal bu mag boobu di cheikh ahmadu bamba ci bis bi muy taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa di am càkku téefam muy fukki fan ak juróom ñett ci safar tàmbali ci liggéeyam ba ca géej ga yàlla xamal ko ca géej ga ak ci bato ba ne mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allamani rahmaanu fi safina kon ci xam-xam boobu raxmaan jege ko lool di yàlla ci yërmandeem gu jege ga ndax bu sore lañuy wax rahim waaye bu jegee ba nga xam ne dara desatu fa ñu ne raxmaan su ko defee ba mu ko jegee ba xamal ko ko Cheikh Ahmadou Bamba boobu ñu toogoon di waxtaani ni mooy alquran juy dox soo demee Seydil Bachir a ngi koy wax ci xëtam fukk ak ñett ci téere ba nga xam ne mooy minanul baaqil qadim te mooy xéewal yu jóge ca kay desal xéewal waxtu wu nekk te yàggoon lool di yàlla mu ne nag fii siirati Cheikhil Xadim te di nettali ay jaar-jaar yu xaadimu rasulillahi Cheikh Ahmadou Bamba ca ba mu ci diggante sëriñ beek alquran ca xëti fukk ak ñett Cheikh Bachir a ngi naan alquranu wal fa huwa wiaauhuma wa xazinatu asraarihima wa manbai ulumihima mu ne alquran ak xadis nag moom mooy ndab li leen yenu mooy ndab li leen yenu mu ne mooy trésor bi leen garde mu ne mooy mbóot li leen denc mu ne mooy balluwaay bi nga xam ne ca biir balluwaay boobu ngay gis luy yi alxuraan kontine nag dinay yufiidu bi anwaai al ulumi wal gawaamidi ala al mustamiin noonu lay sottee noonu lay sànnee ay dëlëñ dex la goo xam ne noonu lay sànnee ay waame waame yoo xam ne toq bu ci nekk rek mun naa màndil lu bari mu cay xéewalee nit ñi wax jooju itam moom la magam xalifatul xaaj Muhammad Ñas di suñu waajur di wéral ci téere ci leetar boobu mu jëloon ci ndigali waajuram alxaaji Abdallah yónnee ko sëñ bu mag bi fekk xisa bu gudd la ndax bàcc seen ca dànq seen dànq sës ca ndula dafa nekkoon ci sëñ bi mu koy toppal alluwaam bi sëñ bi jotee nag ma ba ba war a dugg ci liggéeyam fekk mébétoon na mottalil bàcc lam tàmbali woon ci moom ba mu ñëwee nag jël ca yoon wa muy laaj bàcc seen ba àlluwa ja dogul mu ne ko dem naa ci alaaji Abdoulaye mu mottalil ma ko mu ne ko alaaji Abdoulaye def na lu neex yàlla te naqadi seytaane yëkkati nag benn téere muy tafsirul jalaalayn ne ko am nga joxal ma ko ko bi mu ko ko joxee alxaaji Abdoulaye Niass dafa nekkoon koo xam ne dafa mel ni imaamu lii maanaam dafa daan def ci ay taalibeem ay taalibeem di def ci téere yi waaye moom daanul taalif Chazili dafa daan wax ne talaamisati kutubi samay téere ñoo samay njaboot ñooy samay téere alxaaj Abdoulaye nag ñaan taawam ba xalifatul xaaj Mahamad muy suñu waajur ne ko nga la yónneel ma ci sëñ bi ay abiyaat yoo xam ne danaa ko ci firil jëfam ji xalifatul xaaj Muhammad yónnee ci sëñ bu mag bi xaadimu rasul di ko wax naan ko est-ce que salaamin ka taami chahdi ينوب عنا وصال الراحب الراحي أزكى سلام كالري مسكت نفحته معطرا بنواحي الشيخ فواحي شيخ تقي نقي عيلم علم فما ثنائي بمطريه وأمداحي أتحفتنا بكتاب لا نظير له أروى غليل صدانا بعد الواحي laa zilta tarabu ma aasat wa ma fataqat idal wuchaati bi iraabin wa islaahi aska wa afraxa maa yuhdiihi muxtasiban dabat xamaayaahu iswaafa bi afraaxi huwa aljalaalaani tafsirun limansibikum tafsirun limansibikum misbaaxu cilmin ka daw is subxi lammaaxi bihi tatarrasta an kayd alguruuri waqad أعد ماضي أسياف وأر وأرماحي جزاك عنا إله العالمين كما أحييت من منهج في العرف والضاح خذها مخدرة من وصفكم جليت ترنو بطرف إلى لقياك طماحي أزكى الصلاة على المختار من مضر الهاشمي النبي المصطفى الماحي والآل والصحب ما ناحت مطوقة ala nadirin min al asaani sooy tënk wax ji ci ñaari béyt rekk nga koy tënk nee na ko yónnee nga ñu firim alquran huwal jalaalaani waaye nag li ñu yónnee tafsiirun li mansibikum mooy yow ndax yow sëñ bi alquran juy dox nga firim alquran ju taxaw nga ku la xool ku la déglu ku jëriñu ci yow bu boobaa alquran la delluwaat tafsirun liman sibikum ba pare nag mu ne ko du alquran ju lëndëm ju leer naññ la joo xam ne ku ko xool leerlu misbaaxu ilmin ka daw i subhi waaw bëccëg la génn jant la joo xam ne jant nga boo xam ne ku la xool jëriñu ba pare nag mu wax ko li mu taxawal ci tariqa li mu taxawal ci yoon mu ne ko ahyayta min madhajin fil urfi wa daaxi indi nga manhaj boo xam ne ci ñuñ maarifa wa daaxi lu leer la kon alquran juy dox mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam mooy firi ne cheikh al bachir ridwanullahi alayhi bi mu jógee bay taalif ci sëriñ bi bay wax ci siiraam ba bay wax ci jaar-jaaram ya daf ko daldi yombal yombalab ne kaay ma wax leen sëriñ bi kaay ma wax leen alxuraan mu mel ni bi mu toogee bay taalif te taalif ba tabaarakallah xalim ba ga ba ba taaru na taaru boo xam ne dafay wone jëmm ja dafay wone la mu ëmb bi mu jëlee ba wax la loola ma waxoon ca xel ma wax la xel tënk ko ci alifa naska wal ibaadata tiflan ne la lii dafa ñëw rekk ànd ak moom mat googu dafa ñëw rekk daldi ànd ak moom mu jël la nag mu jëlal la kan mooy sëriñ bi ñu ne ko waxal ñu ko mu ne daal xanaa la waaj a waxoon ca baytam ya laysa ala bu mustankirin an yajmaa alaalama fi waaxidi mu ne wallaay jafewul yàlla mu dajale addina bi yépp ci benn jëmm-jëmm jooju nekk di àddina allahu akbar loola mooy la yàlla loola ma ngay fàttali maqaamaa bi yonent yàlla ibrahim inna ibrahima kaana ummatan ibrahima ca jëmmam ja ab umma bu taxawoon la moo tax sëñ Bachir ne wallahi gisuma lu rafetee lu mën a melal sëriñ bi lu dëggoo lu em nit la woykat ba waxee ne laysa ala bi mustankirin an yajmaa al aalama fi waaxidi kon bi mu tënkee ba won la ne la jëmm jiikat àddina la te mooy inna ibrahima kaana umma jëmm ji àddina ju taxaw ci jëmmam la ñu ne ko kon nu ñuy déggee àddina mu ne kon nañ dugg ak yéen ci dundam ñu ne ko Cheikh Al Bachir lan mooy dundab sëriñ bi mu ne du nangu mukk jëw du nangu ñu def ko ci kanamam du nangoo ànd ak ku koy def du nangu mukk tooñ fu mu gisee kuy tooñ walla mu dégg ko dana taxaw ci kanamam ba kooku xam ne lii duñ ko defee coronam noonu la la jëlee ci xuluquhul quraan la sitt Aïcha waxoon na Aïcha ñu ne ko waxal ñu yonent bi mu ne kaana xuluquhul quraan alquraan ay jikkoom kon mu indil ñu ne jikkoy alquraan ya mu dàq namiima toog jëw ak yu mel noonu mu ne loola moom nga koy fekk ci moom ba Bachir ma ngay nettali mu ne bokk na ci ay bàttaleem moom sëriñ bu mag bi ne moytu leen di wax ci nit yàlla yi moytu leen di wax ci nit yàlla yi ndax xam ne seen deret ja xam leen ne dañ leen a tooke ba soo ci waxee rek dangay ngay daldi gaañ sa bopp moo tax mu ne ne wa wasaayaahu wa samictuhu yaquul inna acraada al anbiyaa'i wal awliyaa'i wal ulamaa al caalimiina masmuuma fal mutakallimu fihim bi suuin ka shaaribi simmin naaqe mu ne moytu leen di wax ci boroom xam-xam yi moytu leen di wax ci nitu yàlla yi moytu leen di wax ci yonent yi moytu leen di wax ci yu ñi ne ko mu ne ndax seen deret ja dañ koo tooke seen der ja dañ koo tooke ba kuy wax ci ñoom dangay mel ni kuy naan tooke kon dundam bi la xasal na ko moo tax sëriñ bi daldi ne waay waay waay Cheikh al Bachir mi ngi naan waay waay waay fa xaddis anhu wala xaraj waxtaanal ci sëriñ bi mbaax gu nekk te bul génne wu loolu mu ngi ci xëti fukk ak juróom benn ci minanul baaqi ca bopp ba ca kaw ma ngay wax naan fa xaddis anhu walla xaraj mu ne waxtaanal gépp ak mbaax loo wax rek bu boobaa yaa ngi ci biir noonu la ko toppee ci mën a jéggaleem fi samaaxatihi di la not wax nag ne la ak tabe moom suñ koy wax ci moom la yem moo tax mu ne la iza tazza bil maarufi wartaaxa lin nada wa aata ataa assamxi an il munabi fa daan nii min maanin wa kaabin wa xaatimin wa alal malabi mu ne bu ñuy wax tabe nag bàyyil ma ne niñ daan waxee seen ak tabe ba naan yaa ngi tabe ba mel ni kaab wala yaa nga tam tabe ba mel xaatim wala yaa nga tabe ba mel ni alamaalab mu ne nag bu sëriñ bi taxawee bu boobaa dootuñ tuddati kenn di wax ne yaa nga tabe ba mel diw ndax fala tabe yem daanul nangu mukk li ñuy wax rumeur a ah, nit ñi de wax nañ nàngam tasaaroo na mukk daanul demee rumeur dafa daan vérifier ay information waaw te loola mooy alquran jaakum fasiqun bi naba in fa tabayyanu moo tax mu ne la daanul dem mukk ci ay rumeur moo tax mu ne fa min waraihi fii ci waraihi ragal ak mu ne fa min waraihi radiyallahu anhu xurujuhu min kulli ma huwa mushaa mu ne dafa daan daw rumeur foofu nag la lay ñëwalee nag ci tasawuf ak góoru tasawuf foofu la lay ñëwalee ci géej gi muy xam yàlla ak topp yàlla ak bugg yàlla Cheikh al Bachir nag remonteel la ko ca jamono yu yonent bi nak nga xame ne xam-xam yépp benn la woon amutoon lu ñuy wax fiq amutoon lu ñuy wax leneen xam-xam benn la woon indil la li ñuy wax taalibeeg sëriñ ba nu ñu bëri di foog ne lu ñu sos la lu tax ngay dem ci sëriñ ba di jébbalu lu tax ngay dem ci sëriñ bi di am sëriñ mu firil la ko yégal la ko ca jamono yonent bi ca bayaa ca sajaratu ridwaan ñëwal la ci saxaaba yi jaayante ak yeesal ak jaayante guñ daan def te xam ne xas nañ dugg waaye dañ daan ñëw yëkkati seen loxo teg ko ci sa loxo ne dama ñëw di yeeslu yooyu yëpp muy yéegataal yéegal la loola ba won la ne la ak taalibe ak cëriñ ci sunna lañ ko fekk wax la ne la doxinib taalibe ci ron sëriñ ci déglu ndigal ci déglu ko ci xool ko itam mu yëgataal la ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa gëstukat yi yaakaar naa ne war nañoo taxawaat ci téere bu mel nii rawatina ci bunt boobu sëñ bi tuddee dégg nga mabxasun fi fanni tasawuf muy ab gëstu bu wax ne daf ko amal ci fannu tasawuf noonu la la ko yëgalee moom sëriñ bi Cheikh al Bachir ba yegsil la ci al imaam al Junaydi ne la moo njëkk ak boolante xam-xam boobu jox ko ay maani mufradaat ba nga xam ne suñ waxee lii lii lañ ci jublu buñ waxee lii lii lañ ci jublu mu ñëwal la ci nag ba ci Abdul Qadir al Jeylaani ak al euh, Sayyid al ca penku ba nga xam ne ñoo fa taxawaloon tariqa mu ñëwal la fii ci maghrib moom Cheikh al Bachir ci Seydi Ahmada Tijaani ci maas ak fukk ak ñaar ak tariqa tijaniya ñëwal la ci fii ci Sahra Mauritanie ci Seydi Mouhamad al Mukhtar bi nga xam ne moo fi yëkkatiwaat tariqatul qaadiriya kon noonu la ko toppale ba ñëwal la nag ci maas ak fukk ak ñett ñëwal la ci sëriñ bi ci loola mu ca feeñal ci yoon yooni tasawuf won la nag ne la lii mooy yoonu gaaya jëlal la nag sëriñ baag nësëbam kon mu mel ni taxaw bi ñu waroon a taxaw ci bis bu njëkk bi mooy taxaw ci yooyu nga xam ne moo lay màndargaal ne sëriñ bi mag bi alxuraan bu taxaw la moo lay màndargaal ne jukkoom yi yépp boo ko xoolee ci alxuraan gis ko ca boo ko xoolee ci doxini yonent ya gis ko ca boo ko xoolee ci doxini nitu yàlla yu mag ya gis ko ca ci ngay gisee ne zuriyatun baaduha min baad benn giir la goo xam ne ko ca xool daldi ko ca gis noonu la la koy toppalee ba won la ne la sëriñ bi lii mu yëkkati woon li mu taxawal njëriñ li mu indi xéewal lii mu feeñal xéewal la boo xam ne dafa am cosaan dafa am fu mu jógee dafa am fu mu bokk xéewal la bu yàlla di joxe taw la bu yàlla di sotti sotti na ko ci ay barab taw bu mag baa ngi kon taw bu waamee ngi kon yooyu yëpp remonté na ko pour boole ko ba nga xam ne ci ñooñ tasawuf la boole ko ci ñooñ zuhd boole ko ca rang booba nga xam ne ca la bokk mu mel ni nag pour dégg sëriñ bi dana laaj ñi ubbiwaat beneen xët mooy ndax li ñuy daw di ronu ci ñuñ àddina di leen uti ndax sëriñ bi àndoon na ci déedéet ndax ñu ñëw soppi ay nitam def leen ay nit yi àndina ndax àndoon na ci déedéet xaalu lii arkun li abwaabi salaatiini xaalu lii arkun li abwaabi salaatiini taxzu jawaa'iza tugni kulla ma xiini fa qultu xasbiya fa qultu xasbiya rabbi bihi wa lastu raadiyan غير العلم والدين ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني إني أفوض أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين keroog ba nga xamee ne te dañ ci ñëwaat Baay Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali wàcc na liggéey ñu woo ko ne ko waaye te ñu laa yóbbu ci buur mu jegeel la defal la lii nga jaale ko te fekk am na fu mu tegoon sa waajur wax ko yooyu yëpp mu ne leen déedéet ne nañ ma demal ci buur soo demee danga am ay lu duun loo fa jëlee ma ne leen daal doyloo naa yàlla moom la waa ji di wax ne dégg nga yàlla doy na ma doyloo naa ko maa indakum fëdd jàng naa ko ndax ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaqin yooyu yëpp nag dañ ci ñëw wax na itam kan mooy murit jox na saadiq wax na ñeenti melokaan yoo xam ne ku ca génn da ngay réerandoor rekk waaye bokkoo te loolu itam la gaay yëpp doon wax tiijaan yombul murit yombul nekk taalibe yombul waaye nag fuñ mës a taxaw rek nag dana bëri ñu leen wër ñoo xam ne at lañ leen di def di dóor ci seen tur di wax ci seen tur waaye nag moom nee na leen ah yéen a ngi naan poson de ndax wax ci kenn koo xam ne ittoo na yàlla wala mu xam-xam-xam ba yow ak naan poson yi yéen yem borom may yu yaatu yooyu nga xam ni ay kaawtéefam nekk na di waxtaan ndax la ko waroon ci pexe pexe ay noon yàlla musal ko ca yépp ba mu sadd bayt wax ko ne salimtu min al mucc naa ci pexe yi noon Ahmed ibnu Muhammad ibnu Habibullah xaadimu rasul waxoon nañu démb ne ama sharaa ci la gane àddina muy 1270 ci hijra wax nañ ne ma nga wàcc liggéey amu shumusin soo ko nattee ci weer jullit yi muy juróom at ak juróom suñ jëlee nag léegi gannaaw màndarga yooyu ñu jël doon ci barkeeloo jël sëriñ bi xaadimul rasuul ak ay jaar jaaram danañ gis ne xaadimu rasuulillaahi ahmadu bamba comme niñ ko waxee tudd waajuram yu sell ya muy muhammad ibnu habibullah ibnu muhammad al kabir tudd itam soxna jaaratullahi maryam te ñu gisoon nañ ko yare waajur ba sëñ moor baay moon anta sali nekkoon na aalim nekkoon na imaam nekkoon na ku ñu xam ci xelam bu sell bu mat ni ko Cheikh al Bachir Mbàkke ca téereem ba soxna sa maam jaara nekkoon na abida jaamukatu yàlla di ko feeñal ci koor yu bari di ko feeñal itam ci taxawal ay guddi di ko feeñal ci bërib sarax waaye itam di ko feeñal ci yar njabootam ci di leen nettali ay xissa yoo xam ne ay nettali yu baax yuy des yooy yëpp pour wax ni ci loxo yu sell ci la ko yàlla jaarale mu nekk moom sëñ bi di ko xam ne ku itteewoon teel a itteewoo xam-xam la yàlla may ko jàng na ca loxo maamam jàngaat itam ci loxo najaayam nekkoon na ci jolof di topp alluwaam waaye itam àndoon naag waajuram ya dem ca saalum ca poroxaan fekk ñoom ñu nga doon uj ji wooteeb maba jaxu ba bi yëkkatiwoon woon ngir taxawal lislaam ca réewam ripp ba mu fa nekkee nekkoon na moom sëñ bi di topp àlluwaam ci loxo najaayam ci loxo àmmam bàyyi taxam sàmbatu Tukulóor nekkoon na di jàng ba nga xam ne gannaaw xare ba ba Maam Mor Anta Sali waree ñib si euh, dellu si Bawal moom dafa des di wéyal alluwaam nekkoon na fa di wéyal ab njàngam moom sëriñ bi Maam Mor Anta Sali ñëw euh, Bawal nekkoon fa dellusiwaatoon tam ak Lat ndax Lat Joor xam nañ ne fekki woon na ma ba waaye fa mu tolloon ca xare ba gannaaw gi ñibbisi woon na itam pour taxawee Bawal moom xaadimu rasulillahi Ahmadu ba bi mu nekkee ci loolu ba nga xam ne nag waajuram ba muy maam Mor Anta Sali génn na àddina ci atam junne ak ñetti téeméer ci milaat nee na ci altine ba sëñ bee koy nettali sëriñ Mouhamad Lamine Diop dagana di ko wax ca téeréem ba nga xam ne mooy irwa un nadim ma ngi koy wax ci xëtëb fukk ak juróom benn mu ne sëriñ bi nettali na ne ba mu mottalee kaamil ca kanam waajuram ba ci guddik altine ëllëg ba di guddik talaata ci la waajur bi di wara a wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey moom Maam Mor Anta Sali ñu war ko yóbbu ca Déqale sëriñ bi bokkoon na ca ñay dem ngir taxawee ko waaye ba muy dem dafa tàmm dox ak ay tànkam ñu bari ñëw nañ gaaral ko seeni waruwaay seeni fas waaye mu ne leen tàmm naa dox ngir sàkku ci yool yooyu yëpp daf ñuy woon jëmmu nitu yàlla ki nga xam ne lu ci nekk rekk tànn na ca yoon wa gën a jafe utul li ñuy wax solution de facilité waaye lu ci nekk rekk xam na ne nu mu gën a méttee yool bi gën a mag te loolu itam ñun ñoo tax muy jàngale ndax nit yàlla yi xéewal lañ bu yàlla di indi ngir seeni jëf war a nekk ab bind mu tànn kon dox ak ay tànkam malgré yiñ ko daan gaaral yépp ci ay waruwaay ba ñu yegsee ba war taxawee Mamor Anta Sali sëriñ tey ba di sëriñ Mamad Ndumbe Mar Sall taxaw taxawee loola bañ pare ba yegsi ca waxtaan wa ak waare wa sëriñ tey ba nag daldi laajte ana sëriñ bi ne ana Ahmadu Bamba ana sëriñ Bamba mu jóg moom sëriñ bi te fekk ma nga toogoon ca gannaaw loolu yëpp itam pour nga gis jëmm ji gis lim ñu jàngal ci tawaadoo ci war a wàcc sa bopp ndax wàcc sa bopp ci la la yàlla di yëkkatee te ñëw na ci xadiis man tawaadaa rafaahu ku wàcc sa bopp yàlla yëkkati la kon ca jataay boobu fekk na sëñ baa ca mbooloo ma waaye dafa ut palaas ca gannaaw toog fa biñ ko wooyee ne ko jege sil mu jóg taxaw taxawaay boo xam ne dana dégg te bu waxee ñu dégg ko mu ne fii baax na ndax buggut a jéggi nit ñi di ñëw si ci kanam ba tey bind ngi foofu ci ñi nga xam ne fu mbooloo bëre ñu wone ne ñoom seen ab dayoo mooy war jéggi mbooloo ma yépp ñëw ci kanam seen ab dayoo mooy war a xëccoo yenn palaas ya ma ngi cay jàngale ne bañ a la jéggi nit ñi te foo toll rek nga xam ne foofa baax na bi sëriñ tey ba jógee bi muy wax ak moom won ko ne ko e gannaaw bi mu ko joxee kàddug njaal ne ko nag su ma sañoon nga ànd ak man ak ñenn ci ñu ñu ràññeeku ci dëkk bi pour ñu ànd dem ca buur ba Lat Joor ngir jottali ko njaal suñ ko jottalee njaal e dana ko neex ndax wëllëre la woon ci waajur bi te itam dana tax mu jegeel la te dana tax itam mu taxaw la ci say bugg-bugg yépp sëriñ bi daldi ko tontu ne ko baatu njaal bi nga jot joxe jot na gërëm ko ci ne ko immaa nag li nga wax pour dem ca buur pour jege ju ko walla pour lenn lu mun di doon loola moom doyloo naa yàlla wëlis loola euh, sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana mi ngi nettali ba tey ci téereem boobu nga xam ne euh, ci lay nettali dund bu sell boobu mi ngi ciy nettali ne ci xëtëb fukk ak juróom ñett mu ne foofa wax na fa loo xam ne ñaari xaaj la mu ne benn bu njëkk bi bi mu waxee waxam jooju ba ne doyloo naa yàlla wëlis buur ak luy jeex ci àddina doyloo naa yàlla yàlla doy na ma mu ne mbooloo ma xaaj ñaari xaaj ñenn ñi ne ah kii de di ndaw nga xam ne boobu war naa toll ci fanweeri at am ngëm gii taxawee taxawaay yii sas nañu ni ñëpp ñenn ñi daldi ne ah kii de xamul li mbugg ku ñuy ubbil bunt yu nu yem ngay taxaw di am baat boo cay teg mu ne mbooloo ma xaaj ñaari xaaj mu ne sëñ bi sadd ca ne xaalu safihun li sarfi an basar li sarfi anhum basari mu ne ñi ne kii de xamul lim bugg ndax li ma xoolul lañu xool sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ma ngay wéyali di wax ne ca nettali ba muy nettali dundu sëriñ bi mu ne nag beneen xaaju bayit bi mokkalu ko mu ne lam astahdirha wala raaytu nusxataha foofu itam la honnêteté intellectuelle mun a yem mu ne beneen xaaju bayit bi nag jotu koo gis waaye nag mu ne beneen xaaju waxu sëriñ bi jëm ca wax mooy booba mu indi ne xaalu te ñi indi woon ko démb xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxzu jawaïsa tourni kullama xiini foofa lay sëñ bi ci abyaat yu bari yum ca wax ba yëg si ne aw kayfa yab'asuni xubbal xutaamu ala jiwaari man dóorihim rawdu shayatini waay waay buggu ndesite àddina beeg xooñ meeg lu doya di lii naka la may puusee ma jëm ci këri buur yoo xam ne seeni kër du lu ay paley seytaane dara xiiruma ci di ca teg banaan in kunta za xasanin aw kunta za watarin daawta zal ayni xabla raa iwa chiin yi bu fekkee ne li lay tax a jóg ba ngay uti këri buur yi mooy jaaxle walla bugg-bugg bu nekk ci yow wool borom ayin ak raa ak chiin mooy boroom aras te xam ne loolu yépp am na ko noona lay ñëwee ba ne yaaman yalumu fala tuksir wa daa uzli ni islastu min fuqdati dunya bi mahzuni in kaana aybi zuhdun fi xutaamihim fa zaaka aybun nafisun laysa yuxzini mu ne bu fekke de won seen gannaaw seen alal jéeg seen nguur yéeg yi ñi wone ne mooy dara bu fekkee loolu mooy sikk ci man kon sukk boobu duwul bu may suufeel kon nii la sëriñ bi jàngalee wara won nguur ak politique ak poñetu àddina bi gannaaw ngir war a xool sa borom ci jamono joo xam ne jana jamono ju jafe noonu itam la sëriñ bi nekkoon di jàngalekat lu jiitu lépp ame daara nekk sëriñ daara noonu itam la daan xeeñtoo yoonu gaaya te mooy yoonu tëjarut génn ci sa jëmm uti sa boroom yoonu siyaaxa di wër di seetlu xul siiru fil ardi boobu noonu la daan awee yooni gaaya di ko xeeñut bim toppee nag ci yoon woowu moom xaadimu rasuul ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag feeñu ko wax ak moom musaafahatan ne ko nag léegi na nga bàyyi di xamle nit ñi ci bind te yóbbu leen ci seen boroom ci himma mu daldi ko won loola yëf ya diis ak moom waaye mu jël nag fas daa bi ma tumar mu xam ne nag lañ koy sant lu dëgër la ca la taxawee nag ca kanam mbooloo ma ca daara ja génn sukkandiku ca loola ne leen alaa man kaana saxibana li taallumi fal yanzur li nafsihi wal yazhab xaysu shaa waliyan wa li jinsihi wa man araada maa aradna fal yassir bi sayrina wal yaqum bi am amrina koo xam ne daal jàng moo ko taxoon a jóg na uti beneen yoon koo xam ne nag dafa ñëw ngir nekk taalibe laxasaayu nañu topp foofa mbooloo ma xaaj ñaari xaaj coow la jóg ñenn ñi ne dañuy dem ñenn ñi di téye ñenn ñi foofa nag la yoon woo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe tàmbalee foofu la liggéey boobu tàmbalee su toori ya abi muhammadan bi azmin wa nasrin wa huwa nirma satulu ñu ngi àndoon nag cheikh al xadim xadimu rasulillah ànd nañ ak moom mu nekk cheikhu tadris di jàngalekat ànd nañ ak moom muy saaxibu himma di borom itte ànd nañ ak moom muy zaahid wan àddina gannaaw àddina nañ ak moom mu tëj bunti buur yi uti bunti buur ba muy yàlla buur uti yàlla ànd nañ ak moom mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu jox ko ndigal ci ne na jël jaam yi ommat leen yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko ko musaafahatan soo demee Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana ma ngi koy wax ci irwaa'u Nadim ma ngi koy wax ca page 22 ba di wax naan yonent bi sallallahu sallam daf koo wax shaafahahu bi qawlihi rabbi asxaabika bilhimma wala turabbihim bi dars mu ne ko na nga yar say ñoñ ci himma te mooy itte googu di jóge ci itte googu di la yóbbu ci sa borom mu lay xamal te bu leen yar ci ab bind ndax xam-xam marsuum moo ca gën a tuuti lañuy bind lañu ñu bindul nag te yàlla di ko xam mu nekk xéewalam mooy la ca gën a mag loola nag sëriñ bi nettali na ko ridwanullahi alayhi sëñ baa ngi wax ne wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bi lawliya ila alqiyaama wa kullu waliya sunnatuhu wa saanaha an bidaci tabshiruhu xadimuhu bi fasdaci muy wax ci kéemaanu ibnu abdallah muy yonent bi sallallahu alayhi